ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci yonent bi eh, sant Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ëllëg di ñaanal suñu Muntaxa Bachir mu yàgg fi te wér eh, comme noonu nga ko waxee rek tey dañoo woote woon tey eh, commission sociale bi nga xam ne nii maire mooy joxe ndigal du laat Ka ñu réunir gis na dëkk bi mm, bari na ay néew ju doole yu fi nekk yoo xam ne dañoo am yéene ndax li ñu def ni yéene rek la muy jàppale leen ci tabaski bi bi mu ko defee nag mu créé benn commission mm, commission bi itam kilifaa ngi ci. ndax sëñ Abdou Lahad Bousso mi ngi ci moo xam ne ni ñëpp xam nañ ko moom mu def ci liggéey bu am solo ci commission bi waaye bañ ci wéyee ba pare nag ñu ne mën nag léegi yow euh, dañ lay bàyyi euh, nga continuer yow euh, doxal liggéey bi nga xam ne kon man ndaw laa rek loo xam ne nii ndawul meer bi laa ndawul meer la ndawul aussi ñi ma bokkal commission bi laa niñ ko defee nag mooy dañoo génnee lu toll ci plus ou moins vingt cinq millions CFA mm, yoo xam ne ni dañ ko bëgg a jagleel néew ji doole 25 millions yi nag dañ ci jënd 22 nag yoo xam ne dañ koy bàyyi ba tam xarit leneen li ci def lépp nag ñu séddale ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo muy pour 565 euh, personnes 565 personnes yooyu nag am na ñoo xam ne am nañ 50 000 am ñoo xam ne am nañ 25 000 am na ñoo xam ne am nañ 75 000 ñi di ko jàppalee euh, ñi nga xam ne jàpp nañ ne soxla nañ ko ñëpp ko soxla sax waaye ñi ko gën a soxla ni ñu ko defee nag c'est très simple mooy dañu fi am benn service social koo xam ne ku ñuy wax Cissé moo ko yor ñu di ko wax CEPRES képp ku ñëw fii ne dafa soxla ndimbal dañ lay yóbbu ca Cissé mu def enquête bi bi Cissé defee enquête ba pare itam de passage ñoo ko ci sant di ko gërëm mu indi liste bi indi ko liste bi mi ngi nii ñu xool ko xam ne valeur boobu la maire wut ab euh, euh, commission commission bi statué ñu xool gis ne yaa cinq cent soixante cinq personnes bañ defee loolu ba pare itam pour ñu am transparence dañoo wax ne maire dafa waxtaan ak ki nga xam ne mooy kilifa gi nga xam ne moo nekk fii Eh, ci dëkk bi ci wax te yor wàll googu mu xamal ko ne ko au lieu que nit ñi di ñëw trésor di fayu si foofa di xat te nit ñi am na ñoo xam ne léeg-léeg da nga naan leen demal trésor ñu dem gendarmerie wala nga leen demal trésor ñu dem sapeur pompier ñu ngi ko yombalal indi ko ci euh, commune bi. indi gi nag euh, ni muy demee mooy euh, dañuy nommer un ku ñuy wax un payeur boo xam ne nii xaalis boobu moom moo koy fay fii au niveau di de la commune ñu def ma ko man sëñ Mbacké Mara xaalis boobu nag su ñëwee. dañ leen di jël benn par benn ñu émerger ku fi ñëw ñu xool ba xam sa tura nga ci am déet xool la nga xam nii foofu la toll nga nga émerger ci ñu jox la sa xaalis suñ ko defee ba nga xam nii ñëpp jeex nañ aussi su yàlla dogalee par exemple xaalis bi jeex euh, alhamdulilah su fekkee am na lu fi des si parce que léegi la nga woo nit doo ko jot wala nga woo nit ko xam ne xëy na dafa tukki wala yu noonu dafa am durée légale boo xam ne suñ ko toogee nag dañuy defaat beneen nag delloo xaalis bi au niveau de trésor ndax Euh, Abdoulaye Ka mooy le maire mais daf koo yëkkati ci li nga xam ne nii mooy xaalisu askan wi dimbaliwaat ko askan wi kon aussi ñu wax askan wi ne ñun ñoom rek lañ fi nekkal maire bi ñoom la fi nekkal ñun ñi aussi ñoom lañ fi nekkal jàpp nañ ne daal euh, ren daal nii la demee pour une valeur plus ou de vingt cinq millions CFA ñu ciy sant ñëpp nag ñoo ngi sant le maire euh, di sant sëñ bu Bousso mi nga xam ne nii keroog bi ñuy def commission moo ko présidé waroon na ñëw sax toog wax mais kenn ko ne xam na ne moom. yitteem ak euh, ni muy jàppee ci dëkk bi tax na am na yu baree bari yoo xam ne dana ko bëgg a fekk waaye du ko mën a fekk nga xam ne kon man seen ndaw laa daal ñun daal noo ngi fi euh, tey euh, alxamis ajjuma ba samedi 5 heures képp ku fi ñëw daal te nekk ci liste bi soo ñëwee sa dañ la ko jox suñ demee ba nga xam ne jeex na ba tabaski jàll itam ku fi ñëwaat ginnaaw tabaski itam te bokk ci liste bi dañ la ko jox waaye am na benn diire légal boo xam ne suñ ci àggee nag koy jël nag xool liñ joxe nu mu toll xool la ca des su boobaa itam dañuy bindaat beneen chèque boo dañ koy bind au nom du trésor delloo ko ko parce que alalu askan bi la te alalu askan bi jàpp nañ noonu rek la war a demee noo ngi jéggalu di ziare eh, di ñaanal dem ñëpp de am tabaski jàmm eh, ñu fekkee di ko te suñ ko fekkee te itam ñu eh, def ci lu kawe njortu ndax lii kat yéene la rek waaye kenn ku ne xam ne nit ñi wax dëgg yàlla suñ yéene ci ñoom mairie bi ak maire bi ak Abdoulaye ka seen yéene ci àgg na ëpp na foofu waaye nag budget moom dafa nekk loo xam ne tontine la budget bi nag xëy na lii moo ci xaj waaye su si biir itam ba nit ñi fay taxi comme niñ ko war a faye ba budget bi àgg itam 5 milliards yoo xam ne dañ ko mën a recouvrer parce que Touba da ngay jékki dégg ñu ne léeg-léeg euh, mairie Touba 5 ah, euh, milliards la waaye am natt la natt boobu nag léeg-léeg nga am 5 milliards dem di wër ba at mi loolu ci la ñuy def fonctionnement ci la ñu war def li ñu ci def ci la ñuy coppati itam di ci dimbali nit te yëmale wuñ ko fii parce que am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def euh, wàllu màggalee ak yu demee noonu lépp nii rek lay demee man nag li ñu ma ci dénk nga xam mooy parti bii ma féete moom nii laa ci fas yéene taxawee kon di jégalu ñëpp di jaari ñëpp di ñaan yàlla itam mu defal ñu tawaskeem jàmm te tal te fekk ko te ñaan sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te wér ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf